bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kàddu yi ngeen jote ko ci seen kër gi nga xam ne képp kuy safoo alquranul karim ci kër gi nga bokk muy di maison du waaye muy baytul qurani fi sénégal di massawu doomu aadama yépp di massawu waa àdduna bi yépp waaye xasatan di massawu waa sénégal yépp waaye di dalal seen xel bu baax di leen wax ne bu leen ragal bu leen ragal yàlla gis na ñëpp yàlla xam na lépp wakkeerlu leen ci yàlla dellu leen ci yàlla tuub leen dellu ci yàlla ñan leen yàlla mu musal leen làqu leen ci ginnaaw yàlla ku làqu ci ginnaaw yàlla wallahi alazim di nga rëcc laa taxzanu law kaana nabiyukum xayan la qaala lakum laa taxzanu ya ummati yonte yàlla muhammad su fekkoon mu ngi dund tey jii de lay wax ne bu leen ragal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 nar tiit mu ne ko laa taxzan kon mbokk yépp xam leen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su doon dund di la wax ne bu leen ragal bu leen tiit kon bu leen ragal kàddu yi nag mu nara tënk ci ñaari tomb ba ca jiitu mooy que ne yàlla buur bi subhanahu wa taala dafay nattu jaam xool gëmam ak woloom yàlla fan la toll kon na ngeen xam ne kenn mënu leen musal kudul borom bi subhanahu wa taala jiital leen gëm yàlla jiital leen confiance ci seen borom yaqiin xaqul yaqiin aynul yaqiin am leen ko ci borom bi subhaanahu wa taala qul lan yusiibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlaana wa ala allahi falyatawakkali almuminuun dara mënu leen dal mukk lu dul loo xam ne moom la yàlla bind ne dina dal seen kaw yalla moom mooy seen sang yalla moom mooy seen kilifa wa ala allahi falyatawakkali almuminuun kon képp ku jot kàddu gi ngay jullit wékkul ci yàlla buur bi subhaanahu wa taala waxal xasbiyallahu wa nicmal wakiil te yàlla ngi waxaat ci beneen laaya wala in sa'altahum man xalaqa alsamaawaati wal arda la yaquulunna allah qul afara'aytum ma tadcuuna min duuni illahi in araadani allahu bidurrin hal hunna kaashifaatu durri aw araadani biraxmatin hal hunna mumshikaatu raxmati qul xasbiya allah alayhi yatawakkalul mutawakkiluun yàlla buur bi subhaanahu wa taala ne yow mii di jaamam su la yàlla bëggee tegab lor maanaam feebar bii su yàlla waxee ne danga bokk ci ñamuy dal wallahi la adim yi ci àdduna bi yépp suñu ñëwoon yendu sa kër fanaan fa tiim la teewul feebar bi dina la dal yow mii di jaamam su yàlla waxee ne feebar bii mënoo bokk ci ña nga xamante ne dina leen laal ak foo mënti nekk ak foo mënti yeewoo feebar bi du la laal mukk kon nanu wekku ci yàlla buur bi subhaanahu wa taala mbokk yi nan la ñuy wekkoo ci yàlla nanu gëm yàlla buur bi subhaanahu wa waaye yàlla gannaaw ba nga ko gëmee nga wekku ci moom dafa bëgg nga def ay sabab dafa bëgg nga def ay effort ndax effort yooyee am na fu muy toll farata la nga def ko waaye am na yoo xam ne farata la nga bàyyi ko mbokk yi ñaareelu tomb bi moom mooy lan ñu daal di déglu li ahli dikr mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jàngoon wàll gi mooy lépp lu jëm ci épidémie ñi nga xam ne jàng nañ wàllu gi ba xam ko ñu wóolu leen ci nekk ay boroomi xel nekk ay nit ñu wóor dafa nekk farata ci yow gannaaw ba nga wékk ko ci yàlla yàlla neen la léegi farata la nga déglu leen luñ la wax nga def ko audu billahi min alsheytaani arrajim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim fasalu ahla aldikri in kuntum la taalamuun allahu akbar ginnaaw ba yàlla tuddale yonent bi salallahu alayhi wa sallam la nga xam ne moom mooy nubuwa ak risaala ga mu doon leen wax yu yàlla neen leen yéen ñi fasalu ahla dikri na ngeen laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo xam wàll gi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll gu nekk ngeen laaj leen lu luñ la wax rek nga def loola kon farata la ci ñun ñu déglu docteur yi ku ci nekk fexee la xam ñoom lu ñu digle ak lu ñu tere feek waroowut ak la yàlla digle wala yàlla tere rek defal farata la nga def ko mbokk yi médecin yi lañu digle bari na waaye ñaar yi moo ci gën a fës docteur yi nee nañu nañu dee jëfe ñaar yi ñu bari nag xaw ko soo fantal lool soo waxee ñu ne dañoo wékku ci yàlla déet ba nga wékkoo ci yàlla dafa bokk ca charte ya yàlla nee na nga góorgóorlu nga jëfe loolu bul sànni sa bopp mukk ca la nga xam ne mooy alkunde médecins yi dañoo digal ñaar yoo xam ne fës na lool parce que dañuy jéem tënk bañ audio bi gudd ba ca jiitu mooy bu buyut docteur yi wax nañu guddi wax nañu bëccëg génn nañ ci télé bi wax dem nañ ci rajo yi wax nee nañu na ñëpp toog ci seen kër yi mbokk yi loolu wax est-ce que xam ngeen ne alquran moo ko njëkk a jàngale yonti yàlla suleymaan ba mu jëlee armeem bu rëy boobu di génni ba mu demee bay jub la nga xamante ne moom mooy janju xorondom ya benn xorondom daal di génne xoolal alquran xatta ida ataw ala waadi namli qaalat namlatun ya ayuha namlu dxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuuduhu wa hum yonte yàlla Suleymaan ba muy ñëw ak armeem nga xam ne ay jinneeg lu nekk ci biir melentaan bi daal taxaw fële mu daal di woo mbokkam yi mu ne yéen samay mbokku melentaan yi na masakinakum dugg leen gaaw ci kër yi dugg leen ci seen pax yi balaa Suleymaan di ñëw rajaxe leen maanaam dox ci seen kaw moom ak armeem te fekk yëgul kon feebar bii di corona soldaaru yàlla la dafa am mission bu muy dox léegi mu dem ku bañ a dajeek moom nag fatul ci kër yi fatu leen ci kër yi fatu leen ci kër yi kon léegi su ko jàppoon ne docteur bi rek moo la ko digal juum nga alquran itam def la koo digal ñaareel ba yàlla buur bi subhaanahu wa taala xoolal ba mu bëggee aar jigéenu jullit ñi daf leen wax ne waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljaahiliyati al ula yàlla nee na jigéenu jullit ñi waqarna fi dugg leen ci seen kër yi fàttu leen ci kër yi sax leen fa wala tabarraj na tabarruj al jahiliyatil ula soo ko firee ci instant bi mooy bu leen def yi fi dof bu leen génn di dajaloo ci mbedd mi nga xam ne feebar bi su leen fa fekkee daf leen di boom yéen ñëpp tabarrujal jaahiliya loolu nit ku xamut rek moom moo koy def tere nañ leen ko ñi xam ne nañ leen bàyyi leen ko kon bàyyi leen ko kon état bi ñun nag bi ñu fatoo ci biir kër yi lan nañ fa war a def wa aqim na salaa nañu góorgóorlu taxawal julli assalaa suñ ko waxee mënoon julli julli mënta wér sans alquran kon nanu julli nanu jàng alquran nañu istigfaar nañu tuub dellu ci yàlla nanu ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala mu moytax yàlla daal di ñuy teggil lii wa atina zaka nañu dimbalante suñu biir ndax am na ñoo xam ne suñu fatoo ñaari fan amuñu lu ñuy lekk am na ñoo xam ne benn fan rek kon yow mi nga xam ne soo fatu woon 6 mois am nga looy lekk gestul sa bokk jullit nga daal di koy jox ca na mu gën a seetlee te na mu gën a baaxee wa atiana allaha wa rasula ngeen topp yàlla waaye topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam innama yuridu allahu li yudhiba ankum rijsa ahla albayt wa yutahirakum tadhira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ci xadis amul lenn luy dal julit bi lu dul ne yàlla daal di koy effacer ay bakkaaram waaye daal di koy soppi mu nekk ay tuyaaba kon yàlla daf noo bëgg laabal ni ki noonu mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay xamle ci xadis boo xam ne Ahmad bun Hanbal moom moo ko nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne amul kenn ci yéen koo xamante ne épidémie dafay am muy aw bi a taawun ak li ni mel su xasee ba am rek fa yamkuthu fi baytihi saabira mu daal di dugg fàttu ci biir këram muñ lool parce que dafay bàyyi ay soxlaam yu bari yi doonte la muy lekk gënalu ko waaye mu muñ ngir lan bañ koo wàlli nit wala bañ a jëli feebar ba andi ko njabootam muhtasiban muy sàkku yool ci yàlla buur bi subhaanahu wa taala topp li nga xam ne mooy ndigal yi yaalamu annahu laa yusibuhu illa ma kataba allahu lahu ci biir këram xam na ne dara du ko dal mukk lu dul ne yàlla bind na ko ba pare illa kaana lahu mithlu ajri shahid lu dul ne yàlla defal na ko tuyaabay ku mel ni maanaam ka nga xam ne martir la ka doon xeexe ca yoonu yàlla ba nu rey ko ba ñu rey ko yéen a bokk tuyaaba xoolal fatu nga sa biir kër ngir nga mucc ci feebar bi waaye teewul yàlla defal la tuyaaba yi kay xeex ca yàlla bur bi subhaanahu wa taala mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko yàlla laajee ba ko saxaaba yi laajee ne ko ñan ñooy ñi nga xam ne ay martir lañ ci sa xeet yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba mu leen di lim daf caa boole lan wa man maata wa man maata fi taawuni fa huwa shahid képp koo xam ne dangaa dee ci feebar yu mel nii épidémie yu mel nii nga xam ne maanaam bépp jullit boo xam ne yàlla dafa dogal nga dee ci yu mel nii fa huwa shahid yow am nga yoolu martir koo xam ne xeex na ci yoonu yàlla ba nu rey ko ca kon mbokk yi islaam léppam yiw la yal na yàlla musal leen kon première li nga xam ne moom la docteur yi digle muy toog ci biir kër yi islaam moo ko njëkk a digle kon toog leen ci kër yi toog leen ci kër yi kon képp kuy génn sa kër te amoo benn soxla ci biti bu jàmp yaa ngi am bàkkaar yaa ngi am bakkaar de yaa ngi am bakkaar yaa ngi lore ay doomu aadama wala nga jëlee ab lor ndi ko sa njaboot ñaareel bi mbokk yi docteur yi nee nañu ñuy raxas suñuy loxo fu ñu manti nekk nañuy raxas suñuy loxo fu ñu ne ti nekk yéen ñëpp wax leen alhamdulillahi ala nicmati l islaam alhamdulillahi ala nicmati l islaam al islaamu diinu nadaafa al islaamu diinu tahaara xoolal fiqul islaami amul benn téere booy ubbi lu du lam lay njëkk jàngal moom mooy laab moom mooy set mbokki imaam al buxaari ak imaam muslim dañuy nettali ci xadiisu abi hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bés mu ne saxaaba yi kaay leen ma jox leen exemple kenn ci yéen su fekkoon ne buntu këram dafa am benn dex boo xamante ne moom moo ca nekk dex boobee bés bu nekk mu dugg ci dex wa daal di sangu juróomi yoon hal yubqi min daranihi shay ndax moom dina bàyyi lenn su fekkee riwaaye muslim hal yabqa min daranihi shay ndax loolu yaramam benn ci tilim ndax dina tilim dina des ci yaramam qaalu laa xaalu laa yabqa min daranihi shay ñu ne ko yonent yàlla Muhammad kooku yaramam day set wecc wecc wecc qaal kadalika alsalawatu alxams yamxu llahu bihinna alxataaya yonent bi ne ni ki noonu juróomi julli maanaam julli bu ci dekk xoolal nga daal dem jàpp daal di jàpp daal di jàpp raxas say loxo laa ilaha illa allah ñi nga xam ne am nañ piscine xam nañ li may wax piscine bi su fekkee bés bu nekk nga dugg ci juróomi yoon xoolal ni sa yaram di mel yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam kon raxas say loxo bii nga xamante ne moom la ñuy wax yonent yàlla Muhammad moo ko njëkkee allahu akbar xoole juróomi julli bu ci nekk nga daal dem nga jàpp set wicc ca beneen xadis ba léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci beneen xadis ba léegi di la gën a soññu mu ne la soo jàppee maanaam nga daal di jàpp jàpp bu mat soo xoolee mu ngi lay naan comme médecin yi nañ la waxee ne sooy raxasu nga góorgóorlu raxas bu baax raxas say loxo raxas ba ca war comme ni nga xam ne noonee moom mooy tax lépp loo xam ne sobe la wala microbe bu nekkoon sa loxo mu daal di dañ yonte bi fa asbaxal wudu isbaxul wudu mooy nga góorgóorlu daal di koy ragg bu baax daal di toflante bu baax daal di xool fépp foo xam ne ndox mi war na faa yegg mu yegg fa yonent bi neen la say bàkkaar dafay génn ci sa ron weey allahu akbar sa ron weeyi bàkkaar yi dañ fay génn kon xoolaat docteur bi newat la soo raxasoo bu baax bépp microbe boo xamante ne wala feebar bi su duggoon ci sa ron sax dafay génn alhamdulillahi ala ni'matil islam kon góor mbokk yi ne ñëpp góorgóorlu daal di jëfe lii nga xam ne moom la ñu leen wax benn na ngeen góorgóorlu di raxas seen loxo yi bu baax a baax comme niñ leen ko waxee ndax islaam moo ko njëkk digle ñaar na ngeen ci seen kër yi islaam moom moo ko njëkk digle seen mbokk seen xarit Cheikh Omarul Fouti yu siis yi comme niñ leen ko waxee woon yéen a ko jote woon ci chaîne ci chaîne bi muy la maison du Coran Sénégal muy kër goo xam ne kërug alquran jàng ak jàngale alquranul karim rek lan koo xamee fii ci réew mi ak bitim réew ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaan صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم